matin. Bon réveil sur RFM. Loolu woor Warna, Warna, na Warna, Warna. woor na RFM matin. RFM matin. émission billet au Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Mamadou Cissé ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Babacar maa ngi lay fay. di la dalal jàmm. Euh, ci RFM matin di Georges Déthié Diop Mamadou Cissé. yow yaay président collectif Mbour 4 mbootaay goo xam ne la. ñu am suuf wala amoon suuf ça dépend. ca fi ñu woowee Mbour 4 ca kees te indi coow. te Diomaye ak Sonko dakkal euh, wala boog mel ni luy waaj a nangu suuf sa ndax dafa am ñu ko séddoo séddoo awul ci yoon. yéen ñi nga xam ne yéen a ci collectif bi euh, suuf sa ngeen fa am. dañ leen ko may wala da ngeen ko jënd. waaw sëñ Babacar maa ngi lay nuyu bu baax euh, di kontaan ci laaj bi nga xamante ni laaj nga ñu ko waaye di nuyu téléspectateur yu euh, euh, RFM yëpp di nuyu ñëpp vraiment di kontaan bu baax a baax ci yi bi nga xam ni defal ngeen ñu ko waaye balaa may commencer rek da ngeen may may tuuti rek ma ma laal tuuti ci historique gu Mbourkat comme ça nit ñi dinañ gën a comprendre que li ñu indi ci mbourkat fo rek classé la won d'une manière générale euh amone nak suñu kilifa yo xamni ñu ngi nekkon doon yëngu ci usine bi ñuy wax NSTS daan fa liggéey yalla def ñu dem ba benn période usine bi tej ñu ñëw dugg si mbuurkat créé fa ay tool ñu dem ba benn moment ñu dugg fa di joxe terrain yi fa nekkon ci biir loolu ñu toog ba 2006 ñu def fa benn pré wan xeetu joxe ci njëlbeen ban xeetu joxe la woon ci ci njëlbeen gi. Mhm. parce que forêt classée la woon. àll boo xam ni kenn waru koo dagg. kenn waru koo dagg. Mhm. léegi ci biir loolu. paa nekkoon fa def fa ay tool di fa bay bi ñuy bay ba benn période am ñu fa dugg daal di di dagg ay terrain di jaay ci biir loolu. ñooñu ñu mu. Hmm? ñan ñoo doon dagg di jaay. ñu doon dagg di jaay loolu lu yàgg la histoire bu yàgg la parce que bu ñu xoolee ci jamono jooju bande boobu ñu doon dagg di jaay. moom la ñu defar pré recensement bi en 2006. ñenn ñoo dagg di jaay mairie bi wala waa domaine wala ñu. non dagg di jaay bi pratiquement euh, benn waay la boo xam ni pratiquement ñoom euh, foofu lañu duggoon ca seen parents yi dañ fa amoon ay tool. Hmm. ñoom ñu ñëw nag doon dagg di jaay. mais ci benn dagg di jaay boobu awul woon yoon. <coughs> awul woon yoon parce que période boobu forêt classée la. Hmm. léegi nag ci biir loolu ci la ñu dem ba 2006 ñu def fa pré recensement. ñu recensé benn bande bàyyi benn bande bi léegi nag ñeneen ñoo fa nekkoon ñu toog da ngay toog sa sa terrain ba mu yàgg wala sa tool nga gis lettre d'attribution ñëw dugg si bu ñëwee pratiquement yow. amul lettre bu bawoo fan. bu bu bu bu jógee ci administration parce que dañoo ñëwoon def fa. présence ban service. ah ban moo doon joxe kayit yi. service technique. urbanisme en en 2006. urbanisme wala wala domaine wala ñan. Euh, préfet mo fi nekkoon ak euh, commission bi nga xamanteni bi ño doon ñom muy mairie ño créé won ben commission en 2006 def fa ben pré recensement ci biir pré recensement bobu ñu defoon dañoo recenser ñi bayyi ñi ñun dañ ñoo bayyi won recenser wuñ ñu ci biir lool da ngay nekk sa tol te ñun ñoo xàlloon mburkat d'une manière bu nga xamni ba nit man fa gis ni dekk way la ñu commencé ño andil ay ciok ay jafé jafé ci biir loolu ci lañu ñu créer collectif bi nag daal nag il faut ñu créer collectif parce que recenser ma Samba bàyyi ma Demba ça pose problème ñu nekk ci nag di ci yéeg di ci wàcc di ci dund coono yu métti da ngay toog sa terrain ba mu yàgg lettre ñëw ñu yóbbu la ci yoon soo demee ci yoon parce que yow yow yoroo benn kayit buy firndeel ni fii war nga fee toog ñu ciy dox di ci dox di ci dox di ci dox ba benn jamono yàlla def ci KMS 3 bi président Macky Sall ñëwoon fa di intégrer KMS 3 bi ñu interpellé ko wax ak moom vraiment mu wax discours bi mu waxoon ci en 2017 ci KMS 3 bi léegi ci la ñu dem <clears throat> ba 2021 ñu toj mbuurkat bi ñu tojee terrain yi nekk foofu ci zone bi ñu continuer waat activités yi rek ba yàlla may ñu sens nag ñu jàkkaarloog président Macky Sall waxtaan ak moom mu ne dina décret dina décréter forêt bi

décret déclassement bi mu ngi ko signé euh, décret bi mu ngi tudd 20 22 114 42 mu ngi ko signé le 25 juillet 2022 ci la signé décret déclassement bi léegi daal di koy def trois zones mu ngi tudd li mu signé mu ngi toll ci 484 hectares zone à régulariser 135 hectares mooy zone bi nga xamante ni bii foofu la occupants yi nekk habitants yi fa lañ nekk fa la lettre 2006 aussi fa lañ nekk mu daal di génnewaat beneen zone tuddee ko zone d'extension recasement boobu mu ngi toll ci 176 hectares mu defaat beneen zone boo xamante ni bii mooy ZAC 2 bi ZAC 2 bi mooy enseignant yi nga xam ni euh, président Ablaye Wade signé loon na leen ñoom it ñu yóbbu leen foofu ci biir commission bi nag bi ñu demee toog commission waxtaan ci lañ ni zone bi nga xamante ni bi ñun foofu la ñu nekk dañuy commencer liggéeyu mburkaat étape par étape premier étape bi mooy dañuy njëkk a ñi nga xam ni dañoo nekk ci sud bi te am kër ci biir mburkaat te amoon kayitu 2006 bu ñu paree ñu jublu ci ñi nga xam ni dañoo amoon kayitu 2006 te bi ñu ñëwee seen terrain dañoo fekk ñu occupé ko ñooñu ñu jël leen ñu yóbbu leen ci zone d'extension bi recaser leen léegi ñi nga xamante ni dañoo nekk ci kër te amuñu kayit amuñu dara ñu commencé nag di leen régulariser noonu la ñuy liggéeyee boobu boobu décret moo nekk le euh, cinq juillet deux mille vingt deux nekk quatre cent quatre vingt quatre hectares nekk zone à régulariser ci pàcc yi ma la wax nii ci ñetti zones yi ñu ko def zone de recasement ak zone euh, ZAC 2 bi léegi nag ci biir loolu pratiquement ñu ngi ci. doon ci liggéey presque ay at ci la am parti boo xam ni ñu ngi koy wax zone euh, non loti ci biir zone yooyu zone bi nga xamante ni foofu la toj bi amoon en deux mille en deux mille vingt et foofu dañ ko tojoon biñ ko tojee nag parce que foofu zone non loti la ci la ñu yónni technicien techniciens yi ñëw fa def fa liggéey boo xamante ni liggéey bu extraordinaire la parce biñ ñëwee ci la ñu lotisewaat foofu mais dañoo xool ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biir te am fa ay kër dëkk fa ñu adopté fa plan boo xam ne ña fa nekk dañ leen fay bàyyi te bi ñu ñëwee dañoo ñëw àndaale pratiquement jël population mbuurkat ànd ak ñoom ci biir liggéey bi population mbuurkat ñoom ñoo doon ñoom lañ doon fay journée ñu nekk ci biir liggéey bi ñu defaat fa benn lotissement lotissement bu bu bu bu aw yoon. mais li ñu bëggoon xam sëñ Cissé mooy. Mhm. Euh, ña fa daggooni tool. Mhm. est ce que amon nañ sañ sañu dagg ci tol bakoy mom bay am luñ ci revendiquer mba ñu ci fell di jaay waaw xam nga forêt classée mom bo né forêt classée rek yow yaang ci forêt classée lolo waralon ñu tek sunu ki bi yëpp doon dox pour président de la république mën ñu signer décret de classement parce que ñàkkoon aw yoon mo waralon pratiquement ay at ñu ci daw ba yalla dimbali ñu ñu am décret de classement loolu mom pratiquement loolu est-ce que buñ ko déclassé yéna ko war mom automatiquement c'est ça aussi le problème wa parce que xam nga décret bu nek aussi dafa am num tuddu parce que looloo waral ñu daal di def 484 hectares def zone à régulariser def zone de recasement pour kenn ku ci nek ñi nga xamanté dañu amone lettre 2006 té bi ñu sen terrain pratiquement ñom dañ ko dañ ko occuper ñu ma leen recaser tay lan mo leen bolek ciowal mbuur kat waaw parce que xam nga euh, ñun ñoo waral ciowli

légui nak ci biir euh, lolu biñu démé ba le le le le 3 février 2023 lañu ñu defaat décret ñu tuddé ko ville nouvelle nouvelle ville nouvelle ville bobu nak fofu lañu wax di jafé jafé yi fa am fofu la amé mais ci suñ li nga xamante bi tay ji moy mooy sunu parti ñun mu nekk mbuurkat ñu tuddé ko mbuurkat ñun ci liñu ñu nekk franchement parler depuis un an wala deux ans. ñu ngi sur le terrain ñu ngi ciy liggéey nit ñi di jox seen i kayit mais président nag dafa ñëw le premier mai euh, mbuurkaat wàcc si fa bi mu ñëwee ci la ñëw ànd ak euh, service technique yeeg yëpp dugg ci àll bi pratiquement bi mu génnee ñaari fan la ci teg daal di daal di signé benn euh, kii ni nañu dakkandi lépp lu nga xamante ni bi liggéey la ci biir mbuurkaat wala yooyu ci biir nak euh, mu ni ñun rafetlu. mais président de euh, bi mi et ak journaliste yi keroog samedi jële mhm. wax na ni euh, gaa dakkal nañ lépp waaye fi ñu jëm mooy. Mhm. séddalewaat yëf yi mu awat yoon. waaw parce que xam nga fofu pratiquement rôle xolé nouvelle nouvelle ville bi la parce que nouvelle ville bi mo am problème parce que ci biir décret déclassement wu Mbourkat bi les 173 hectares bi pratiquement bobu urbanisme mon moko cœur. dépendre sax au niveau local Thiès dépendre foofu boobu mu ngi dépendre à Dakar kon tey jii ci parti bi nga xamante ni bii mooy nouvelle ville bi jàpp secteur boobu ñoom ñoo am benn ñoo am jafe-jafe bi mais ñun fi ñu nekk par benn nit ku nekk am terrain ñu lay régulariser moo xam dangaa dëkk ci kër moo xam dañoo tojoon sa kër raser sa kër ñun ci yooyu la ñu nekk doon ko régulariser kenn ku ci nekk jot ci li nga xamante ni bi yow loolu nga moom te boobaak léegi yàlla ak ñuy dimbali euh, ñun en tant que collectif bokk nañ ci liggéey bi ànd ci ak les services techniques ñu ciy def nag liggéey boo xamante ni bi liggéey bu extraordinaire la ci li nga xamante ni bi tey ñun wax dëgg yàlla ñun mu loolu loolu lañu ñu boot kon euh, ci biir loolu bi mu ñëwee aussi ci kon daal euh, li jomaay ak bëggu ci woon bokk yéen da nga jàpp ne waru ñu waru ñu ak seen i seen i seen seen i suuf. waaw parce que xam nga ñun fi ñu nekk ak nouvelle ville ñaari décret la ñaari décret yu bokkul la décret bi pratiquement mu ngi tudd décret mbuurkat ñu def ñu def ko la vingt cinq juillet deux mille vingt deux lañ ñu lañ lañ ko signé bii mu ngi nekk le trois février deux mille vingt kon xam nga ñaari décret yi duñ benn. ñaari décret yo des décrets de dafa séparé wu kon. 3 février nous bu Farba Ngom dossier targo ak décret décret 3 février. Il ngi élection présidentielle. bobu lañuy wax nouvelle. non non 2023 la 2023 la. 3 mm. février 2023. tout à fait bobu lañ tuddé villes ville nouvelle. ci bobu nak wax ni dafa am ay am. a Euh, ku ni benn nit di yor ay junni parcelle ak yu ma xamul loolu moom. Ah, yéem na leen de xanaa. yi trop parce que jamono ji nga xamante ne bii moom la ñu weesu. yónni woon na comité euh, comité ad hoc bu jóge woon à à Dakar ñëw cees bi ñu ñëwee aussi invité woon nañu collectif bi collectif bi dem ñu déglu ñu wax dëgg yàlla dégluñu bu baax waxtaan ak ñun vraiment le lendemain ñu ñëw ci sud bi ànd ak ñun sur le terrain jour boobu presque ñu ngi génn presque quinze heures ci àll bi dugg nañu Mbourkat. jaar nouvelle ville pratiquement tournée loolu aussi ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax ko li comité ad bi nga xamante ni bii ñëwoon na mais di ci jaajëfal aussi président de la république parce que suuf si moom loo xam ne ñëpp dañ ko bokk kon damay jàpp ni ah lépp loo xamante ni bii lëndëm na dafay jaadu aussi ñu ñu leeral ko dañuy dañuy jàpp ni dañ ko war a leeral ba mu leer waaye nag ñun ñi nga xamante ni bii tey ñoo war a coow li ñun ñooy nekk mbuurkat ñu tuddi ñu amaat benen xex ba am beren décret bu ñëwaat suñu kaw ñu tuddé ko ville nouvelle nouvelle ville tay mu impacté population mbuurkat nga nekk ci kër tey jii ñëmé to tabax ndax so tabaxé pratiquement ñu ñu ñu ñëw descos ñëw japp la to am nga am sa autorisation de construire mëno construire nga am sa keuyit wara dem outi autorisation de construire mu am pour nga am ko c'est ton problème ngay dégg ci yeneen secteur ñuy jox nit ñi ay bay te ñun ñoo ñëk jot ay kayit ci mbur carte mënu ñoo fexé ba am bay lolu xam nga aussi franchement lu lu metti la kon li nga xamanteni bi euh, bëgg nañ ko té diko ñaan le président de la république moy vraiment mu jappalé ñu ñun population mbur carte wax deug yalla euh, ndax fañu nek ñu ngi liggéey té ñi ñu tojon seen kër ñu yëkëti bay waja dëkk seen kër ñu raser seen kër néant def ko zéro tey jii ñooñu ñu nekk ci guddi gu bët setagul ba tey jii mënaguñoo jot kayit loolu situation la boo xamante ni situation bu metti la rawatina aussi nga nekk ak say nawle ngeen ànd di di di xeex benn mbir yow tey nga jot kayit moo mënta fexe ba jot kayit à chaque fois mu ñuy fekk ci ñu ñuy fekk ci collectif bi di di ñaxtu. ci yéen ñooñu nee nga régularisation recasement. Mm-hmm. ñi ñu régulariser woon. Mm-hmm. te taxawal seen i liggéey jamono ji ñaata lañ. oh mbuurkaat yëpp la. mburkaat yépp la lépp lépp lañ taxawal lépp bo yoré keuyit sax am autorisation de construire sax monoto liggéey. est-ce que am nañ jotoon tabax bam yegg bam dëkk. si waaw zone bi nga xamanteni bi moy zone les 135 hectares zone bobu pratiquement dëkk dañ ko dañ abi dañ ko habiter presque bam bam ba la fay dess barétul parti bi nga xamanteni bi moy terrain nuit fa mu uppé deug moy ñi nga xam ne dañoo ñu toj len en 2021 ndax 2021 dañ leen toj amoon na 2014 benn toj bu fa amoon même 2009 amoon na toj te loolu dafa am lu mu créer lu bëri loo xamante ni bii ci mbuurkat ci ay jafe-jafe la te loolu aussi ñu ngi ci tàllal loxo bu baax la président de la république mu dugal ci loxoom parce que ay nit la ñoo xamante ni bi ay taqalekat lañ am ñoo xam ne ay jaaykatu taabal la ñu woon am ñoo xam ne jaaykatu caaf la ñu woon nekk ci guddi gu bët setagul ñooñu ñu ngi ñaan président mu accompagner leen mu jàppale leen parce que ay néew du doole lañ te kenn ku ci nek benn terrain nga am parce que ñun fi ñu amul kenn ku fa am ay hectare amul ku fa nek amul kenn ku fa am hectare ku fa ku fay réclamer ku nek sa terrain ngay réclamer pour dëkk ak sa njabot amul ay ñi euh, am daraja buruxlu ci biir. ala fa terrain yeen fa nga xamanteni yeen fa ngeen nek wa ñun pratiquement dañ dañu tënk bi ndax mburkat dafa daté ay at yu yagg te ni mu yàggee pratiquement ñun am na lu bëri loo xamante ni bi xam nañ ko ci sud bi xamante nañ bu baax a baax a baax ndax amoon nañ pré recensement boo xamante ni def nañ ko en 2018 am na bu ñu a def en 2010 pratiquement loolu ay base la yoo xamante ni bi daf ñuy mën a permettre ñu xam terrain bu nekk naka naka naka la demee te boole ci ca jamono jooju avant ñu am décret de képp koo xam ne amoon nga terrain dinañ ñëw identifier sa terrain daggal la rosi nga adhéré loolu moom euh, jàppale nañu mais ci li nga xamante ni bii mooy zone non lotie dafa am ñetti toj yi nga xamante ni dafaa jaar te ñetti toj yooyu dafa am impact bu mu def ci ñun. Hmm. muy muy muy muy muy pratiquement bi ñu tojee bu njëkk ñu ci bëri amoon na ñoo xamante ni bii découragé nañ dem nañ. 2014 hmm. ñu tojaat am ñu bëri ñoo xamante ni découragé nañ. am na am kuy laaj ba xam euh, ñi ñi ñu yëkkati woon ba ñuy euh, tabax autoroute Ila Touba ndax ci yéen lañ bokkam déet. waa ci am nañu euh, bande bi nga xamante ni moo nekk kon euh, voie de contournement bi bi nga xamante ni moo jugee soo duggee ci tableau commune dugg biir Mbourkat génne ji INDR boobu euh, yoon la boo xamante ni pratiquement moo séparé fi ñuy wax jéggi bi ak habit fi yi fi ñu nekk. Mm-hmm. léegi. ci biir li li président Diomaye Faye dogal. mook premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. loolu moom ànd ngeen ci mooy njabootu Macky Sall gi séddoo suusoo séddoo gu gu gu jéggi daye googu. Mhm. Euh, sédd séddoog baadoo la sax lañ def foofa loolu moom ànd ngeen ci. ànd nañ ci ñun ah. bëgg nañu lépp leer parce que tey jii euh, bi ñu nee nañu taxaw dañoo taxaw ñun ñëpp di taxaw di xaar di xool. mais bi ñu demee ba nga xamante ni bi tey dem nañu ba xam ni problème yi fi jafe-jafe yi fi mu am ak ñun fi ñu nekk du benn loolu moo taxaw tax ñu jóg taxaw di ñaan le président de la république parce que tey ñu ngi jëm nawet te ku ñëw ci surtout mbuurkat xam mbuurkat ni mu demee. ñi xamul Cees euh, ci tënk foofu la ñu jeexalee. Mhm. mooy fan. ci biir ci ci biir kees ngir ñu ko miinul. ñi ko miinul mbuurkat mooy soo ko jëlee ci euh, autoroute bi. Ila Touba bi Ila Touba bi wàcc si dugg si biir Thiès. côté stade eh, voilà avant que yegg. stade premier rond point bi. gauche hmm. continuer dem euh, euh, antenne bi antenne la commencé Je dem ba bassin ba dem côté de Dakar 2. waaw foofu foofu foofu foofu xal xàll xàll gu yàlla. waaw fu yàlla mais abit presque dëkke nañ ko nag. nit ñi dëkk nañ bu baax a baax a baax. Mm. mais nag jafe-jafe nga fa yoo xamante ni pratiquement arrêt bi daf ci joué te nawet bi mu ngi ñëw te ndox ndoxu taw yeeg situation yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, vraiment ñu ngi ñaan daal président mu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax a baax jàppale population mburkat euh, vraiment ba ñu génn ci situation yi ñi jotul woon mën a jot. ñi nga xamante ni dañoo am ay terrain ci jéggi bi ci ginnaaw. te amoon fa ay tool te jëluñu leen en compte ñu leen di ñaan. ñu jàppale leen dugal dugal dugal seen. loxo Mamadou Cissé jërëjëf. vraiment merci sëñ Babacar kontaan naa ci invitation bu baax euh, di ñaan président de la république aussi mu jàppale ñu invité euh, recevoir. collectif Mbourkat. jërëjëf Mamadou Cissé président collectif Mbourkat jërëjëf jëf jërëjëf Dieynaba